الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه سبيل الرضوان والتمكين bokk yi ñu ngi leen di nuyu teg nuyoo bi ci loxo sëriñ Abibu Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamad Fadal mu tegal na ko ci mboolem kilifa yi fi teew yëpp ak bokk yi fi teew yëpp noonu la jotale nuyoo bi itam ci soxna Bintu Mbàkke ibnu bintu Cheikh Habibu mu jottali nu ko ci mboolem soxna yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp di yëkkati sunu kàddu nag ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbakke nu Serigne Cheikh Mbakke Madina mi fi teewal Serigne Cheikh Mbakke Madina sant yoo baw ci Serigne Cheikh Mbakke Madina jëm si ci Serigne Habibu ak mbooloo mi mu jiite. ak soxna bint ak mboolem soxna yi nga xam ne jiite na ko ci liggéey bii sëriñ bi mu ngi leen di bàyyi xel di wax ne saa su ne lépp lu ñu defal Seexuna Ahmadul Xadim ku ca nekk moom nga ca nekkal kon mu ngi koy ànd ak ci saahir ak baatin loolu yi nag tax na mu yabal fi doomam di Cheikh Mouhamadul Moustapha ngir mu teewal ko ci jotaay bi xam ne lépp moom la waroon liñ fi liñ fiy def lépp moo ko waroon a def yi nag nee na ci sant ci taxawaay bi di leen ñaanal yàlla subhaanahu wa fépp fu ngeen bëgg àgg mu àggale leen fa mi ngi bëgg ci jotaay bi ak taxawaay yi bu baax a baax sëñ Abibu Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamad Fadal léegi la yóbbante ay kàddu cant ci sëriñ Cheikh ñu di ko teg ci loxol Cheikh Mouhamadul Moustapha sëñ Abibu nee na sëriñ Cheikh ñu ngi koy sant ndax nee na 2020 jaayant bi nga xam ne doon nañ ko jaayante tam jafe woon lool nee na booba day am na taalibeem bu jënd am machine ci 53 millions teg ko ci loxoom mu yónni Serigne Cheikh Aliou mu ñëw ci moom mu wax ko ko ñu ñëw fii jël si ko te nee na lool yi taxul mu rocc ci loxoom benn yoon mu ngi ànd ak ñun ci saahir ak ci baatin sëñ bu nee na sëriñ Moustapha mi ngi lay seereel ne la yëg na taxawaayu sëñ Cheikh ci mbooloo mi ak yitte jum ci am ak safoo comme leen safoo loolu yi sëriñ Abibu nee na mooy sababu ñu indi jotaay bi fii kon daal nee na mi ngi sant tey ñaan tey gërëm di ñaan yàlla liggéey bii ñu liggéey ngeen di liggéey yàlla na ngeen ci daje ak ngërëmal Sayxul Xadiim te fépp fu ngeen bëgg àgg fa yàlla na ko fa yàlla àggale xam naa kàddu yi ma yóbbante woon gënoon naa jub lii ma wax waaye lii daal mooy kàddu yi nga xam ne muy kàddu cant yi bawoo ci Serigne Cheikh Mbacké Madina jëm si ci mbooloo mi ak kàddu yi bawoo ci sëriñ Abibu Mbàkke jëm si ci sëriñ Cheikh Mbàkke Madina kon loolu muy ñaari cant yu daje yoo xam ni ñëpp mën nañoo seere ne seeni kàddu daawu jóg ci lu loo xam ne lu yàlla gërëm la kon yëkkati nañ ko fiñ yaakaar yi ngërëmul yàlla ak ngërëmul sëriñ bi képp ku fi teew ñu ngi ñaan yàlla defal la tawféex te dajalaa ngërëmul sëriñ Tuubaa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Basiru kàddu yi matale na yàlla suñu borom guddal saw fan wéral say jël te mottali seeni ci barke borom Touba soxna maam Marème